actu di jour lu ci gën a fës bokk na si rek lu doy waar la xew ca diwaanu ceese di Mariam Diagne bu ex copain bam rek eh, buy wuyoo si turu Assane Gueye dal di faat gannaaw ba mu mënulee supporter rek lu mu marié ak beneen góor Assane nag am na lu mu jot a xamal sax waajurub eh, ñii di kii di Mariam Diagne waajuru bu jigéenu tamit eh, Assane am na tamit la mu xamal ñenn si suñu naataango yi loolu yëpp danañ leen ko jottalil fii ci actu du jour dinañ wax tamit ci mbirum Mamadou Diop ak Dieyna waral rek eh, ay waajuru jëy na nangu rek ñuy luwel seen doom ju jigéen jooju teg si nekk mineur ab appartement doon na laaj bu ñu bëri eh, di laaj si internet yi Mamadou Balde nag di frère Dieyna daal dina si répondre eh, ba tey rek danañu wax tamit ana naka la Dieyna def ak ñaari xaritam nga xam ne bokk na si bu ndaw bokkoon si seen petit gàlle ak beneen xaritam bi wuyoo si biiba ak tamit magam bu góor boobee di Ali piégé rek kii di Mamadou Diop ba daal di koy filmer gannaaw rek ne moom moomee dafa ame amee impuissance euh, sexuelle loolee rek tax ñu daal di koy piéger ñoom ñooñee ba daal di koy rek euh, filmer Néné Tine àndul benn yoon si loi bii di criminalisation viole bi moom nag Néné lu waral àndu si daal dina koy xam xamle ñun tamit danañ leen ko jottalil danañu wax tamit si bis bu daanu dimanche ca Ndioujouf di ab village bu nekkee si commune bu Diouroup Fatick boobule bis nag euh, faat na sept passager ba noppi 48 doomu aadama jële si ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo rek si 32e compagnie des sapeurs pompiers bu Fatick dinañ leen ko gën a Marius Sagna ay fan yu néew rek gànnaaw ba ñu ko libéré célèbre activiste bi daa di dem rek eh, ca village natalam di Etomé nekkee ci commune bu Niassia département bu Ziguinchor si noonu nag jigéen ya nekkee ca Bayot eh, génnoon nañu en masse ngir rendre ko hommage waaye tamit conjuré ko mauvais sort bi bu loolu yëpp yem ba ñu toftal ci tàggat yaram ak mbirum kii di Kalidou Koulibaly danañ li ma ci gën a fës eh, bu ngeen taaxirloo rek gannaaw bàkk bi ñu daal di dama bëgg sama soxna bu baax a baax yàkku na yile kàddu nag la boroom kër Mariam Diagne mi nga xam ne nii rek ex petit moo ko faat. Euh, ni ki samedi ku ko faat nag di wuyoo si turu Assane Gueye moo ngi faatee rek ca quartier Medina Fall bu Thiès yooyu lay kàddu nag la borom këru Mariam Diagne yëkkati moom mu mee nag daa intervenir rek seen mission xalaas jooy di xamle rek euh, méttit ba mu àndal euh, ci soxnaam si ñu faat bu ñu si moom Assane dafa def exprès rek jógee ko Maroc ñëwaat fii si Sénégal ngir jël bakkanu soxnaam soosee te dara ko lu dul lu ñuy somme bu yemook euh, ñetti million ci suñuy koppar si euh, noonu mi xam ne sax ne kii di Assane ñaari bakkan rek la faat ndaxte soxnaam soosee dafa nekkoon en état moom moomee nag ba tey si ay kàddoom moom borom këru Mariam Diagne Assane daal dina koy woo di ko xamal ne jabaram joojee da koo yoroon da koo yoreel xaalis mu xamal ko ni ne ko won ay firndeel ngir mu remboursé ko waaye moom moomee rek di Assane mosu ko won ay firndeel moom moomee nag nee na waxoon nañ ko sax ni bu mu jegee soxnaam soosee waaye nag ba tey si kàddu borom këru Mariam Diagne Euh, munta rek euh, comprendre yi li rey ñuy nemmeeku fii ci Sénégal laata muy jooy ci téléphone bi di yokkaat ci ay kàddoom ne dafa bëggoon loola kii di soxnaam mënula am rekk lenn lu gën soxnaam soosee te moom moomee moo ko wax Assane daal dina koy jëlal rekk koo xam ne nii ku cher la woon ci moom lum ko def metti na lool mënta comprendre lu xew Sénégal et moom moom mii rek bu ne woon rek dafa jóg tey ngir venger wu moom moom mii rek lañuy ñuy gën a punir que Assane mu ne ko moom borom këru Mariam Diagne laata muy rek nekk di jooy ci téléphone bi jooy yu métti loola gannaaw rekk ba mu mënutee supporter bi le méttit ñu teg ko faat rek soxnaam soose nga xam ne rek jot ñoo dund rek wa ila savouré seen mariage bi nga xamante ne nii yàggul ba ñu marié léegi. gannaaw ba ñu leen nuyoo ba noppi ñu ñuy teewlu saa su ne si Dakar Buzz ca diwaanu Thiès laa koy dooree ak du jour bi si eh, waxtu bu ñuy célébrer la femme si àdduna wërngal képp nag ni kii démb yemoo ko 8 mars Mariam Diagne la ex copain wam buy wuyoo si turu ba Assane Gueye faat gannaaw ba mu mënulee supporter rek lu mu marié ak beneen góor Assane Gueye nag ay atam toll si 36 ans mi ngi doon daanee dooleem ca Maroc gannaaw ba mu ñëwee Sénégal si guddi jeudi 5 jàpp vendredi 6 mars si àjjuma ji nag la dem kër Mariam Diagne am ñaar fukki at ak juróom foofee ca quartier dina Fall extension di doon réclamer rek euh, ndaw su mu doon bëgganteel ñetti million si suñuy koppar yum ko rekk yónnee woon laata muy euh, xamal ay waajurub Mariam Diagne ni da doon yónnee bépp bépp xaalis ba mu foraatu woon foofee ca Maroc seen doom ju jigéen joojee gannaaw bañ ko euh, promettre woon lii di mariage mu merloo ko rek tax rekk ba si ëllëg sa yemoo ko samedi def lépp rek ba jaaree ci buntu quincaillerie bi yéega ci teraas bu Mariam am néeg ak paaka rek ba mu yoroon laata mu koy def jëf ji mel Ah, ba tey si bile xibaar lay desandi waaye bile yoon ak waajur bu jigéenu présumé meurtrier bi eh, moom nag soxna Ndiaye nee na yàgg naa wax kii di Mariam Diagne mu bàyyi Assane ndaxte rekk normalul laata mi xamle sax ni dàkk na kii di Mariam Diagne këram lu dul benn yoon du ñaari yoon eh, si noonu soxna Ndiaye di dellu di xamle ni yàgg naa seeti ay sëriñ sax ngir ñu fajal ko doomam ji nga xam ni ba ñuy waaj rek weeru koor bale ñu génn la jaar si ndox mi ngir Espagne waaye mujj la rek woon yegg foofee ca Espagne ba tax mu yem Maroc di fay def njaay mu sew comme ni mu ko doon defee fii si Sénégal waaye nag waajuram bu jigéen boobu dëggal na ni tamit Mariam jaañ da doon bëgganteeg doomam jooju di Assane nga xam ne rek dafa am ay jafe-jafe xel depuis ba mu nekkee tout tànk bu ñu sukkandikoo si kàddu waajuram bu jigéen si fàttali nag Mariam Diagne étudiante la woon en génie civil nekkoon si deuxième année bu ñetti weer eh, néewam boobee nag ñu ko yóbbu woon ca hôpital Mamadou Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès. mbirum Mamadou Diop ak Dieyna la ñuy wax lu waral nag ay waajuru Dieyna nanguwul rek ñu luweel seen doom jooju appartement nekk rek mineur doon na lu internet yi di laaj lu bëri Mamadou Balde nag di frère Dieyna daal dinay tontu boobu lay laaj si l'observateur lu mu xamle nag moo di lépp ngi jógee ko si concert bu Abiba doon amal rek foofee ca Kolda ñu dekk invité woon si sërëm bii di Dieyna ngir mu def prestation si noonu noonee nag la leen Mamadou Diop proposé ngir récupérer Dieyna ci label de production wam bi à l'enseigne Gamboul Inc ba noppi rek encadré carrière am artistique beeg euh, rek wàllum jàng bi ba Dieyna mën a boole rek ñaar yooyee euh, xamal ko rek ay waajuru ba Dieyna moom Mamadou Diop bu ñu sukkandikoo ci frèeru Dieyna bi te boobu rek moom moomee di Dieynaba Balde mi ngi amoon fukki at ak juróom doon def classe bu première foofee ca Kolda ak moyenne rek 16 euh, ci la ay parents wam seen ñaan Dieyna dal di ñëw ndakaaru dëkk si sëram buy sëy cité Damel après nag quelque temps rek la Diop waxaat euh, seen sër boobee ak message bu responsable ni école bu mu inscrire rek kii di naa nekk foofee ca Sacré Cœur da ko sori loolu rek moo tax mu bëgg ko luwel ab appartement ngir mu mën a jege école am te boole rek si anam bu mucc ayib jàngam ak musique bi gannaaw ba mu leen xamalee ni moom moomee responsable la te dara taxu koo jóg lu du jay na mettre ko ci condition yu baax si noonee nag euh, leen leen convaincre ba sërëm daal di koy rek euh, accordel li ni mu daal di koy jëlal rek ab appartement moom Diop ca Liberté 6 fu dara sax agence de voyage boobee di Gambolo Inc. ba loolu weesoo nag beneen candidate wu seen petit gallé euh, la enquêteur ya nekkee ca division spéciale de lutte contre la cybercriminalité convoqué ni ki tey si altine ji juróom-ñeenti fan si weeru mars 2020 kookee nag du kenn ku dul bu ndaw gannaaw rek ba ñu confisqué ay téléphone Mamadou Diop Dieyna Baldé ak frère am bii di Ali ak tamit copinam euh, demi-finaliste seen Petit Galle boobee en 2016 di Habibatou ñu gën koo xam rek ci turu bu ndaw euh, confiscation boobu nag ñu ngi ko amal quelques jours gannaaw ba ñu ubbee enquête bi ci lu ñeel rek collecte illicite de données et chantage bu ñuy buy visé ab trio incriminé ci noonu message WhatsApp yeeg yeneen yi rek la enquêteurs yi di boobule affaire eh, si noonee nag kii di Mamadou Diop daal dinay resté constant si kanamu enquêteurs yi gannaaw ba mu leen xamalee ni mësula tëdd ak kii di Dieyna donte sax nangu na ni moo ko hébergé eh, joxoon ko sax ay fon ba mu ko waxee ni rek dafa ëmb waaye boobule version nag doyul enquêteurs yi nga xam ne nii rek remonté nañ si ay échange téléphonique yu bëri eh, si diggante kii di Dieyna ak Mamadou Diop lu ñeel nag seen vidéo bu ñu fësaloon si réseaux sociaux yi fasoog benn drap eh, téye si loxo jay naa si waxtu bu Ali mu ko doon filmer di ko yëkkee lu mel ni xeme rek bu ñu sukkandikoo si information libération yi vidéo boobu ñu ngi ko tourné 31 décembre bi ñu génn si ab auberge bu nekkee ca Karak eh, wuuteeg rek nag ñu bëri yaakaaree woon Mamadou Diop mi ngi woon nag Abibatou Sy pour des jambes à l'air ba Mamadou Diop nag fëtee ko nag ba set rek la Dieynaba Baldé ak frère am bu complot woon nag Abibatou Sy débarqué si auberge boobee si noonu la jëy naa xamale enquêteurs yi ne dañoo filmer rek kii di Mamadou Diop ngir eh, firndeel ni dafay tëddee xale yu jigéen yi par ailleurs yenn média sax en ligne di affirmer ni Aïssatou Seydi di kenn si soxna Mamadou Diop yi moo rek eh, nekk mu nekk sax jamono ji si ay tànk divorce ak borom këram googe moo rek activé ñi di jay naaw ak ay ñamu àndal waaye nag loolu dara amu si ndaxte turub Aïssatou Seydi rek apparaître la benn yoon si yooyu enquête eh, ba loolu weesoo nag ba tey si rek Mamadou Diop ak euh, rek ni bii la yoon nag Dieyna bu ndaw ak Abibatou Sy ñu koy wax bii ba piégé xibaar wi nag Babacar Touré di directeur euh, publication Kewoulo Info moo ko fësal bu ñu sukkandikoo si moom vidéo boobu di mettre en scène Dieyna Baldé ak Mamadou Diop directeur général buy ZEC mi ngi am rek depuis weer décembre atum 2019 loolee nag di ab piège bu Dieynaba Baldé monté frère am bii di Ali ak ñaari xaritam yooyee di bu ndaw ak bii ba gannaaw ba Mamadou Diop bañee rek doon rek doom bañee rek doom bu na ba Baldé ëmb wax rek ay mbokk ki jegeñaale Dieyna ni dafa amee impuissance sexuelle bu mu jëlee eh, rek eh, si ab feebar ngir firndeel nag ni du Diop lu muy wax amul ne nag la ko ñen xale yu jigéen yi ak aali filmé gannaaw ba ñu doon xaarandee rek moment bu adéquat ngir entrer en jeu mu gis nag euh, nu situation bi mujjee graaw euh, ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci directeur de publication lu euh, info Mamadou Diop daal di leen di rek wax ngir ñu supprimer vidéo bi mu nangu doom ju Dieyna ëmb waaye nag tenirul ay promesse am ci noonu ne rek la ak Ali yónneewee boobule vidéo ñu filmer rek 31 décembre ñenn ci seeni ba nag sax moo kii di Mamadou Diop daal plainte ngir. diffusion d'images dégradantes. ba loolu yëpp weesoo ba tey rek ci boobule mbir kilifa nag bu Y'en a dal di dinay addu si mbirum Dieyna boobee moom nag nee depuis 6 heures euh, mu ngi rek ak Dieyna euh, ca division de la cybercriminalité depuis vendredi affaire u Dieyna de Sen Petit Gallé ak Mamadou Diop DG bu ISEG rek mu ngi juru ay coow si rek fii si sunu réew mi kookee nag ñu tuumal di ma Mamadou Diop euh, dinañ ko fixé si sooram ki altine bi kilifa nag bu Y'en a nag

di rek euh, bañ bile injustice daal di defendre kii di Dieyna nee na rek moom moomee sa jege na xale bu jigéen bi daal dina koy expliquer tuuti rek si boobu la histoire euh, si nu ne rek la waxee ni nag euh, du bàyyi benn yoon si bile histoire par rek moom moomee dafa yàgg defendre protection gu jigéen maître Clédor li nag mu ngi si mbir yu sérieux donc nag moom moomee dana ko si dooleel moom moomee di kilifa. Euh, depuis 6 heures du matin nee na moom moomee la nekk rek ak Dieyna euh, ca division de la cybercriminalité du nelawul nee na depuis démb waaye rek yàlla baax na loolee yëpp rek ngir ñu mun a am lu leer si bile mbir si fàttali nag enquêteurs ya nekkee ca division spéciale de lutte contre la cybercriminalité ñu ngi convoqué rek tey si altine ji juróom-ñeenti fan si weeru mars beneen ancienne candidate émission seen petit gàlle di rek bu ndaw yeneen euh, danañ doon bés yu décisive si kii di Mamadou Diop mu reconnaître rek ne dépensé na lu jege 15 millions ci suñuy koppar ngir rek jël en charge Dieynaba Balde mu ko joxoñ baaraamu tuumatalin tey jii ne moo ko ëmbal mu lu muy ko lu muy wëyandi rek di koy weddi pour euh, lu ñeel nag défense am DG bu zeg bi daal dinay rek commettre euh, maître Moussa Sarr ak Alassane Cissé ñu àddu si bus bu daanu dimanche ca Ndioudiouf di ab village bu nekkee si commune bu Diouroup Fatick boobule biis nag faat juróom-ñaari passager ba noppi ñeent fukki nit ak juróom-ñett jëlee si ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo si 32e compagnie des sapeurs pompiers bu Fatick si set yooyu nag ñàkk si seen bakkan bokk na si ñeenti jigéen ak ñetti góor si waxtu bi mu amee si 48 yooyu jëlee si ay gaañu gaañu 17 yu nekk si bu grave bu ñu sukkandikoo si benn agent de la compagnie de Fatick. technique bu APS joindre par téléphone bis boobu nag doon daw xel mi ngi jóge ko woon Dakar di daw si sens Fatick Kaolack laata rek muy daanu si côté route nationale 1 bi ba muy génnee rek ju njuujuuf gannaaw ba pneu arrière yi amee woon ay jafe-jafe. si Guy sa eh, Sagna lay addu ay fan yu néew rek gannaaw ba ñu ko libéré célèbre activiste boobee daa dem rek ca village natalam bii di Etomé nekkee ci commune bu Niassia département bu Ziguinchor si noonu nag jigéen ya nekkee ca Bayot génnoon nañu en masse ngir rendre ko hommage waaye tamit conjurer ko mauvais sort bi mu doonoon nag moment rituel ak culturel bu rëy si activiste boobee wàcc si aéroport bu Ziguinchor dimanche juróom-ñetti fan si weeru mars 2020 jógee ko. ko rek si diwaanu Ndakaaru laata mi rejoindre village bu Etomé nga xam ne tamit daal dinañ koy eh, rek dalal comme nu ñuy dalalee buur bu ñu sukkandikoo si immédiat tàggat yaram laa koy tëjee ak mbirum Kalidou Koulibaly international sénégalais boobu nag nga xam ni eh, jënd na ab appartement ba noppi day rejoindre rek Paris Saint-Germain ngir ab transfert bu ñu estimé ci cinquante milliards ñëwu ba Kalidou Koulibaly boobu nag ñu ngi ko prévoir rek ci bu ñuy amal mercato été bi.